am nañ problème parce que booy bi booy bu waane lay kii booy bu waane la mais ñu ñëw nag ci mboojum kaani gi diggante Ama Baldé ak Modou Lo combat boobu noonu tey boo ñu doon boo ñu ko doon tojal lan nga ñu ciy wax non Ama Baldé ak euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy Modou Lo euh, combat la combat jànk la te aussi Ama dafa dafa dafa yàgg bëgg bëreek Modou te aussi dafa prouver parce que bu prouvéwul woon euh, Modou Lo du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko jël donc dafa prouve mais combat boobu daal euh, euh, yaay Fall du combat boo xamante ne prix dip lay doon non waaw ku ne da nga jël sa sa temps nga bëre combat bi franchement parler. Ama lan moo ko war ci combat bi. li ko war ci combat bi parce que toujours dañuy ne Ama day mamm toujours loolu la ñuy wax Ama na taxaw déglu Modou. na taxaw déglu Modou du question ko ni moom moo soxla dafa war a dem noonu gis nga làmb dafa am lu mu laaj làmb bu laajee dem nga dem bu laajee taxaw nga taxaw mais combat bii nii nii laajul dem man loolu noonu laay conseil Ama komba bii laajul dem parce que ñëpp xam ne Ama saa yu arbitre siffle rek day mama dem Modou Lô Modou moo moo gën a xam ne Ama day dem man damay conseil Ama moom na xaar. Hmm. moom mu xaar ndax bu demee lan moo ko ci mën a fekk. loolu Modou da koy préparer ak surprise mun na am surprise bu rëy man li may koy li ma koy conseil daal moom na xaar ba dem jot rek mu dem mais prip rek mu dem nu mu daan mamme Modou Lo du gan ci làmb Modou Lo xam na bu baax a baax a baax li ko war waaw te Modou Lo yorul bi nii nii rek pour joxe ko noonu franchement parler te aussi euh, ñoom ñaar dafa am fu ñu jaar te aussi am na ay wax yu ñu waxante ñoom ñaar donc combat bii nii du combat buy gaaw franchement parler mi fi ñu jaar mooy mooy mooy dañoo daje mbapat Modou Lo daan ci mbapat. waaw waaw daan ko ci mbapat. donc mun nañu jàpp ne euh, revanche la mun nañu jàpp aussi que ne Ama li mu daan wax que ne soxlawul lu dul bi moom lay jël si. roi bi mu ñëw jëlaat ko ci magam. Eumeu Sène Pikine encore tamit. waaw mu jëlaat ko ci Eumeu mu jëlaat ko ci Eumeu mais tamit du yomb ci ñoom ñaar ñëpp waaw du yomb ci ñoom ñaar ñëpp waaw. Euh, Modou Lo boo amoon loo koy wax tey jii lan lay doon. Modou Lo bu ma amoon li ma koy wax mooy euh, am na façon bëre bu muy bëre mooy euh, may ak tànk gis nga nit ki lépp loo mën mm, am na koo xamante ne bu ko ne caf rek day jeex ama dafa mën a tànk te ama xale la dafa am doole waaw bu téyee tànk moom ah mun na ci am dara de. ni may waxee nii yow daa ni ama nga xaw a de. parce que lamb ji. du question de du question de du question de supporter parce que Ama dafa dafa prouver te aussi nit ki tamit mënoo ko bu prouver tamit mënoo ko wax lu dul mënoo ko def lu dul encourager ko waaw mais li may li ma leer ba leer li ma leer ba leer combat bi du doon combat bu yomb franchement parler. séntu nga ci xeex yóbbu aado wala dóor mu kaaw. moom day am moom. xeex moom day am ci combat bi mënut a ñàkk parce que Ama day ñëw. te ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo Modou munoo munoo munoo bëre moom te ñamoo loolu tamit mu ngi ci. Hmm. ku dàq xeex ci ñoom ñaar. ku dàq parce que boo xoolee ñaari seen seen seen palmarès ki nga xamante ne moom mooy moom mooy Modou Lo euh, yaakaar naa ne musta musta musta dem Ardo te boo xoolee combat ama yi am na combat yu mu demee Ardo donc foofu tamit man ci côté xee bi légèrement Modou laa koy jox. ci côté bëre bi. ci côté bëre bi tamit man ma man daal Modou laay jox légèrement favori Modou Lo laay jox légèrement favori parce que boo boo tegee komba Modou Lo yëpp moom day bëre day xeex mais combat Ama yi tamit mun. waaw euh, yaay Fall côté boobu tamit man damay lancer état bi rek tamit ñoom ñu instauré fi ay ay ay ay société yoo xamante ne jeunesse bi ñoom dinañ ci mën a dinañ ci mën a euh, liggéey. dañ fi dinañ ci mën a dugg au lieu que ñoom ñuy jël gaal di dem parce que cinq cent 500000 yi ngay joxe pour dem sa bakkan xaj na ci yaa ngi comprendre 500000 francs yooyu noonu mun nga ci jënd ay dàll mun nga ci jënd leneen toog fii nii di nga am sa jàmm am sa salaam nekk fi ak sa famille mais loo xamante ne tey jii nii risque la xamoo li nga fay fekk ndax boo demee tey jii nii ndax di nga am liggéey au bien ndax di nga am fooy fanaan loolu yëpp tamit vraiment lu jar a xoolaat la. donc man maa ngi lancé appel état bi moom na wutal jeunesse bi liggéey ñoom ñu liggéey vaut mieux que ñoom ñuy dem parce que li ñoom liñ fay fekk tamit xamuñu ko loolu risque mënu koo weesu franchement parler. Mhm. ok ñu yegg si cappaandawu émission bi say dernier kàddu. sama dernier kàddu rek moom mooy euh, di woo waa Kër Moussa yëpp vraiment ñu ñëw jàppale ki nga xamante ne moom mooy. Euh, Assane production surtout monsieur le maire ak euh, monsieur Djibi Ciss PDG groupe solution aussi ak euh, Sekandour sans frontière moo di ñoon borom Kosef tamit maa ngi koy woo mu jàppale ki nga xamante ne moom mooy euh, Assane production di santaat bu baax a baax sama yaay maa ngi koy santaat bu baax a baax di santaat sama yaay bu baax a baax di sant ki nga xamante ne moom mooy wuli wuli Matasis mooy jabaru sama tonton bi sama rakku yaay dafa tëdd feebar depuis un an mu ngi ci tamit maa ngi koy ñaanal yàlla vraiment yàlla na yàlla fëgg bopp bi maa ngi woo waa Kër Moussa waa Kaajal yëpp ñoom ñu bàyyi ko xel waaw ñu ñaanal ko bu baax a baax ñu jàppale ko di sant bu baax a baax sama mag ji Awa maa ngi koy sant bu baax ak jëkkëram euh, Assane di sant ñoom kii ñoom Khady ñoom Ngone ñoom Sophie ak ñoom Wuli ñoom maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ñoom sama rak ñoom Ibou ñoom Maam Góor vraiment maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax ak waa ARK yëpp. di jël nuyoo bi tamit di ko teg ci loxo ki nga xamante ne moom mooy président mooy Ousmane Ciss bu baax a baax a baax Yaay Fall euh, di leen ñaanal li nga xamante ne moom mooy euh, seen seen seen site bi yàlla dem ba mu nekk euh, télé bu mag a mag a mag yàlla mun na ko am na ko yàlla na leen ko yàlla defal di la sant bu baax di la gërëm di sant bu baax ki nga xamante ne mooy sa caméraman bi di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. noonu lay demee di am mbégte bu baax ak kontaante rek ñëwoon fii ci Medina tey dalal fi benn xele boo xamante ne mu ngi ci yoon mu ngi ci yoon suqali làmb duñ def lu dul ñaanal ko jàppale ko di bëggee kenn ci man tey émission bi tey lu ma tourné tey moom la muy taaw njëkk ju juddu njëkk a baax Assane Samb dinaa la joyeux anniversaire longue vie à 3 borom le 3 décembre dëgg neexul mag ju gën ci ñun nga mag ju ñu yërëm nga yow abuñu sa fay dundal loo dund doyul yàlla bàyyi la ak sa njaboot gi bàyyi laak ñëpp ba ci kanam a kanam a bi nga am ci ñun ak sa yaay suñu borom defal la ko dëgg neexul taabu gën ci ñun nga dëgg neexul ñu la koy ñaanal ay ati ati at di bëggee sama caméraman naan rang muy gaaw ah, ba beneen yoon incha allah